ben mbir la xam naa après suñu mbokk Mouhamadou Nagir dana ci ñëw ci ay leeral bi ci jiitu mooy aujourd'hui mayatuñ kenn koo xam ne nii ak ku mën ci doon la ngay taxaw di wax naka sudul noonu ci kër maam Khalifa Niass ak ku mën ci doon nag mayatuñ ko kenn ñaareel bi mooy homme de politique yi fiy ñëw di def naka sudul noonu ak ku mën doon ak parti boo mënti nekk yemal ci sa politique nga bàyyi ñu suñu kër kër maam Khalifa xameewuñ ñu politique xamee wuñ ñu affaire àdduna li ñu xamee mooy diine li ñu xamee mooy tarixa tiijaan li ñu xamee mooy jàng ak jàngale comme loolu la ñu xamee nag bëgguñu ci bëggatuñoo dégg kenn koo xam ne ni day wax ñun jeunes yi nga xam ne ñoo bokk ci mouvement bi di ko jëmale ci kër gi laa seemaa nag suñ kilifa muy Cheikh Ahmad Tidiane Khalifa Niass moom lañ am mooy suñ kilifa kilifa kilifa kilifa maam xalifa nag mooy suñ kilifa ñun osra ñi seen yépp bawuñ kenn waxuma la xalifa bi waaye maytuñ kenn koo xam ne sax day wax di jëmale ci koo xam ne du xalifa bi kon dañoo jéggi waxu xalifa bi xalifa bi nag lu mu wax ñun mouvement bi yëpp ñang ca lu mu santaane ñang ca lu mu tere ba nañ ndax moo fi maam xalifa ñes moo fi suñ kilifa Assane Touba nag cadre leneen lu dul loo xam ne nii lu dëppoowut ak charia ak diine la ñun waxuñ lu jëm ci loolu képp ku bëgg am ak lew nañu seen jàmm daal amal ak kilifa gi jàmm am ak kilifa gi jàmm nag mooy am ak ñun jàmm képp koo xam ne ni bëgg nga sa waaw di waaw sax déet di déet mayal kilifa gi jàmm am ak moom jàmm dëppaloog say waaw di ay waawam xalifa bi ak kilifa gi genn la muy Cheikh Tidiane Khalifa Niass lii moo nekkoon taxawaayu mouvement bi aujourd'hui mayatuñ kenn ak ku mën doon ngay wax di jëmale ci xalifa bi wala mu wax aussi tamit moom la mu wax noonu la keneen di tekkiwul la la mu wax du noonu waaye li xalifa bi wax moom mooy noonu ñun jeunes yi marabu lew nañu seen yëpp ñu ngi tënku ci gannaaw xalifa bi ñu ngi tënku ci gannaaw ay waawam tënku ci gannaaw ay déetam su ko defee Mouhamed Nagir dina dina ci sànni ay kàddu ñaan ñu tasaaroo beneen yoon ñu déggee ko noonu mboolem taalib boo xam ne bokkoon ci mouvement bi ñu la ci ogu ñu bokk ci aujourd'hui muy homme d'état muy muy koo xam ne du homme d'état taxaw na pour attaquer kër gi ñun jeunes ñi attaqué danañ taxaw attaqué la ak noo mënti ñëwee nag loo gis rek ñun la ñun tamit oote wuñ violence nag jàmm lañ oote mais ci biir jàmm boobu ku ñu jàmmal jàmmal suñ pays bi jàmm rek ñu may la jàmm hmm. ndax yàlla sax man kaane laay kaane laa wala wala nekk ku ko nekkal moom rek mu nekk ak la ñun nag ku nekk suñu kilifa yi ci jàmm may leen jàmm ak ku mënti doon nag nay koo xam ne usra ñaseen yi la làmboo rek fas yéene liggéeyal kër gi bis boo ko mayee ko jàmm rek may nga ñu jàmm ñun seen loolu moo ñu taxaw taxawal mouvement bi maytuñ kenn koo xam ne nag da ngay attaqué law nañu seen ku mënti doon rek loo gis ñun la wasalaamaaleykum wa wa barakatu